sangu set mooy nga daal di matal sa yaram ci ndox mu laab ci anam bi ñu xam indi charte yi ak ponk yi léeg mën na war ku mel ni ku gis règle wala boo ku amee janaaba léeg mën na nekk lu ñu sopp mel ni sangu bi ngay sangu tabaski wala julli sangu set am na ay teggin bokk na ci nga daal di dem foo xamante ne kenn du la gis yàlla nettali na yont yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ab waaye bu doon sangu te nëbbutuwul waaye tamit toroxlu waayewul mu daal di yëg ci kaw baram sant yàlla bàkk ko topp mu ne yàlla kat ku am kersa la waaye tamit dafay tuturaal ayib ay jaamam kon boo kenn kenn kuy sangu na daal di dem nëbbutu ba kenn du ko gis bokk na ci teggi ni bañ a yàq ndox waaye tamit bañ ko sotti sa kaw ci amoo ci soxla yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jamono dina ñëw dana am ñoo xamante ñoom dinañu ëppal jéggi dayo ci lii di jëfandikoo ndox ci sangu waaye tamit ci ñaan bon xam yi dëppoo nañ ni yàq ndox daganul donte da nga nekk ci tefesub géej bokk na ci tegginu yi nga xamante ne sangu la nga tàmbalee sa côté ndeyjoor xër tamit ngir cër yëpp daal di tooy raxas poqotaan yi ak gannaaw oom yi suy ñaay Aïcha radiallahu anha mu ne nekkoon na yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doon sangu janaaba da doon njëkki raxas ay loxom topp mu daal di jàpp jàpp bu mat sëpp topp mu daal di xàlli karo gi ak deru bopp bi yëpp daal di tooy topp mu daal di ciy sotti ñetti yoon ndox topp mu daal di raxas mbooleem yaramam